internautes yi topp Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission 2024 plus ni ngeen ko tàmmee am du lundi au jeudi ci waxtu bi ñu leen di gërëm ci ànd beeg ñun di am mbégte toujours jàkkaarloog yéen am beneen mbégte tey dalal Mouhamadou Lamine Bara Lo euh, mu nekk njiital mouvement Farlu bokk ci coalition Sonko président 2024 spécialiste la ci wàllu politique étrangère défense ak sécurité ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Télé Sénégal sëñ bi Lo am mbégte lool nga doon sunu gan soxna Faat ñu ngi lay sant bu baax di sant euh, suñu cheikh suñu xarit di am mbégte teew ci plateau Télé Sénégal di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan yépp rawatina waa Touba ak Mbàkke sympathisant ak ah. membre bu ma farlu yépp ndax foofu ngeen gën a yëngatu waaw fa lañ dëkk fa lañ gën a yëngatu d'accord xam nga Touba moom mooy mooy mooy suñ gox hmm. voilà d'accord loolu dinañ ci ñëw Cheikh yow itam ma lay nuyu di am mbégte toujours euh, feggoog yow ci 2024 plus waaw salaamaaleykum soxna Fatou maa ngi lay nuyu euh, di nuyu suñu invité vraiment di ko dalal jàmm di euh, nuyu suñu téléspectateurs yi ñu seetaan hmm. di am yaakaar li ñu fi waxtaan rek yàlla na doon ngëneel si ñun doon ko si askan bi incha allah. Mhm. jërëjëf alors euh, Mouhamadou Lamine Baralo actualité bi xam nañu dafa tënk ci wàllu nga bokk ci coalition Sonko président 2024. fi ñuy tàmbalee suñu laaj mooy euh, naka ngeen di xaaree conseil constitutionnel fan ngeen yaakaar ne fa lay génn ak candidature euh, seen candidat d' abord seen plan A Ousmane Sonko euh, waa PASTEF yéen moom Sonko président moom mooy seen candidat mais yaakaar ngeen ne li laxasu ci candidature am yépp vraiment gëm ngeen ne conseil génnewaat liste officielle candidat à l' élection présidentielle euh, de février dina ko ci boole. waaw soxna Fatou xam nga sénégal yi ñu seetaan yëpp suivre nañ processus électoral bi euh, depuis parrainage bi ba fi ñu toll tey jii waaye tamit li jiitu parenage bi li xew Sénégal ñëpp xam nañ ko tey jii kenn du fi gan euh, li nga xam ne nag buñ koy tënk moo fi xew mooy Ousmane Sonko depuis je pense septembre deux mille vingt deux dafa jën déclaré candidature am dox jëm ci. Euh, en face nag on a eu un régime boo xam ne def na en face de Ousmane Sonko loo xam ne yàgg na ko def mooy li may faral di tuddee euh, ingénierie politico-judiciaire 2019 loolu lañu gisoon contre Karim ak Khalifa parce que à l'époque c'était les adversaires majeurs 2024 bi ñu nekk ni tey ñu teel a gis seen adversaire def ay pexe ngir faagaagal ko yàlla def nag euh, bi ñu ñëwee tey ba ci cappaandal processus électoral bi candidat boobu sénégalais boobu nekk ci posture boo xam ne yoon daf ka may pour mu dem élection ndax naam jëm nañ kaa faagaagal waaye dañoo gis ne décision bu am solo boo xam ne tribunal de Dakar lantre na ko dafa demandé woon à que ñu réintégrer ko sur les listes électorales en face nag li ñu gis mooy lan une administration qui a fait un déni de droit l'administration boo xam ne dafa remplacer lu juge électoral usurper rôle boo xam ne du bosam moo tax waa DGE la nga ko jox fiche malgré la décision qui devait être Euh, waaye tamit caisse de dépôt et de consignation jouer un rôle politique partisan bañ ko jox euh, attestation même si jox na ko ci temps sam donc tey jii li tax ñun ñu am yaakaar mooy lan mooy conseil constitutionnel juge électoral la mais conseil constitutionnel tey jii dafa am benn rôle bu historique bu mu war a jouer boo xam ne dafa sax dépassé ki nga xam ne mooy Sénégal di Ousmane Sonko mais dafa jëm sur le peuple sénégalais ndax bu ñu ne élection faatu mm. euh, sénégalais yi ñoo am droit tànn ndax tànn koo xam ne dafa am doole ju rëy ci seen ci seen dund pandant cinq ans war leen a jiite moo tax bu ñu àggee ci rendez-vous mel noonu day woo ñi bëgg a nekk candidat yépp te droit électoral nekk droit bu inclusif boo xam ne yéene mooy boole ñépp mën a nekk candidat nga xam ne Sénégal yi nga xam ne ñoom am droit tànn tànn ku leen neex nga xam ne buñ ci génnee ni may faral di ko waxee ku kuñ fi teg rek da ngay xam ne yow mii tànneefu sénégalais yi nga waaye kuñ fi tegut tamit nga xam ne sénégalais yi ñoo waroon a tànn amoon nañ possibilité tànn la waaye ñoo la fi bàyyi tànn kaneen nga xam ne sa dignité war na laa mën a may nga nangu ko moo tax euh, le conseil constitutionnel xam loolu lépp te ñi nga xam ne ñooy mandataire Ousmane Sonko ak ay avocats am aussi ñu am euh, tout la responsabilité tout le professionnalisme nécessaire constaté ko par huissier avec des preuves yoo xam ne fu mu la sax conseil constitutionnel mais tout les sénégalais ñoo ko gis pour man jàpp naa ne conseil constitutionnel boobu joué jëlaat li nga xam ne moom mooy cëram te ñeneen bëggoon kaa sàcc muy DG ak euh, euh, caisse de dépôt décision bi muy génne ci suñ candidat Ousmane Sonko mooy valider candidature am te au-delà même de éléments yi ñu indi y a des jurisprudences au Sénégal surtout par rapport à la question de la caution bi nga xam ne conseil constitutionnel boo xoolee décision liste provisoire bi mu génne moom la évoqué pour rejeter Sonko en 98 y a une jurisprudence qui boo xam ne c'est après même cas te li ñu tënk rek boobu mooy ne. bu fekkee ne faute bi mënuñu kaa imputer candidat bi mais administration mënuñu see xañ candidat bi ay ay ay droit moo tax ñu am yaakaar ci suñu candidat Sonko. Hmm. Cheikh looy teg ci li mu wax. waaw encore une fois Fatou dama jàpp ne euh, Ousmane Sonko comme démb ni ma la ko waxee woon. Hmm. Euh, à travers li nga xamante ni motif bi nga xamante ni waa conséquence constitutionnel évoqué nañ ko. ne looloo tax nanguwuñu quand même euh, sëgg si li nga xamante ni mooy dossier am. Hmm. xool parrainage yeeg yooyu noonu. Euh, euh, ne nañ ne c'est une absence n'est-ce pas d'une attestation bi nga xamante ni caisse de dépôt et de consignation moo ko waroon jébbal mm. mais dans les faits comme ni ko sunu invité waxee les Sénégalais sont témoins gis nañ ne quand même que le mandataire de Ousmane Sonko en son temps ki nga xam ne mooy Ayib Daffé mm. jotoon na def toutes les démarches administratives dem au niveau de la DGE pour des fiches de parrainage mu dem au niveau du euh, au niveau de la caisse de dépôt et de pour déposer fa chèque bi dans un premier temps ñu gis ne déposé nañu nangul ko chèque bi ba même selon les informations qu'on a reçues chèque bi jotoon nañ ko déjà encaissé donc mu war a dellu si nag jël li nga xamante ni mooy attestation bi nga xamante ni daf ko war a jébbal ki nga xamante ni mooy conseil constitutionnel pour compléter dossier mais malheureusement on a vu am benn bi xam ne ko mettre en branle n'est-ce empêché ko mu accéder fi nga xamante mooy locaux CDC euh, donc encore une fois bu dee euh, y a eu une jurisprudence encore euh, il y a quand même des actes yi nga xamante ni ou bien des nu mu tudd procès verbaux yi nga xamante ni des huissiers des agents assermentés ñoo ko def génnee ko mm. euh, mettre ko à disposition pour wane ni quand même du Ousmane Sonko mi nga xamante ni euh, moom à travers son mandataire Ayib Daffé ñoom ñoo def ay fautes wala ñoom ñoo deful la ñu war a def mais c'est l'administration qui s'est opposée euh, malgré n'est-ce pas ay décisions de justice yi nga xamante ni euh, génn na au niveau de du tribunal de grande instance bu Ziguinchor pense euh, grande instance bu Dakar aussi dëggal ko euh, ñu gis ne ni donc malheureusement euh, ñu persévérer encore une fois di bañ ne du ñu mm. li nga xamante ni mooy décision de justice yooyu bon donc comme je dis Ousmane Sonko aujourd'hui il est remis en selle léegi dinañu xool la dernière de euh, dernier mot n'est-ce pas revient au conseil mi nga xamante ni moom moo war a prononcé wu si quand même bu nekkee ni ñu ngi toujours dans un pays bi nga xamante ni la séparation des pouvoirs réalité la bu dee réalité la c'est le conseil xamante ni euh, à travers la correspondance bi nga xamante ni waa waa nu mu tudd collectif des recalés euh, génnee nañ ko jébbal ko président di ko ñaan peut-être njekk ay yooyu noonu donc vraiment euh, ñu xam ne ni c'est le constitutionnel qui doit prononcer et qui mm. doit prendre ses responsabilités parce que histoire mu ngi koy xaar mm. sénégalais yi peuple sénégalais mu ngi xaar euh, vraiment ñu jël décision yi nga xamante ne c'est des décisions mais basées sur des textes mm. basées sur les lois de notre pays mm-hmm. ci kanamu conseil boobu muy tudd ci processus électoral c'est lui le dernier arbitre comme par exemple si dialogue suñu amulee consensus ak yu mel noonu Ousmane Sonko génnee bataaxal démb wala bax ki dem ci ci face euh, page Facebook am daal di weddi euh, ñooñu nga xam ne euh, ñoom ñoo boole turam ci loolu est-ce que c'est pas une manière peut-être de se désolidariser de l'opposition ñi nga xam ne quand même loo mën a wax xam ne Ousmane Sonko am na ci taxawaay bu am solo pourquoi jàppalewu leen leen y a aussi une ndax nee nañu Sonko président coalition bi amoon na représentant pourquoi ngeen am représentant dem ba si biir bugg a rocceeku génnee seen bopp ci lettre bi alors que vous étiez ensemble ci euh, peut-être recours yeeg yu mel du ma wax désolidariser wu mais euh, ni nga ko tënk rek fa lay commencer. Mm. Euh, ñaan njëkk président de la république ci processus électoral loolu la ñu wax euh, ñi nekk ci réew mi gis président Macky ni muy doxale xam ni ko olof yi waxee lu jiit njàgg mooy njàgg ci li xew lépp. ndax wax dëgg yàlla coowal parrainage beeg lépp tous les problèmes du processus électoral en réalité c'est parce que on a une administration qui est en réalité loolu la te loolu lépp régime bi la kilifa régime mooy président Macky Sall. Hmm. de commencé wul tey ah. comme li ñuy wax ñoo yàgg am ay ay ay sabotage électoral depuis les législatives de moom laay wax sax xam ne c'était un cas à exceptionnel. Hmm. amaat ko 2019 yi à chaque élection. amaana euh, li jàppale opposition parfois mooy engagement bi sénégalais yi am à voter contre ce régime à les sanctionner mooy tax mais le président Macky Sall mësutoo wane volonté am processus processus électoral bu inclusif bu transparent mësu ko am ah hmm. voilà même ci dialogue yi ñu daan dem parfois la plupart des de des des des des accords des conventions retenues généralement li ko intéressé la ci def bàyyi bàyyi li ci des. moo tax moo tax tey jii pourtant na élection bu leer. bu bu waaw mais yàgg na ko wax mais jëf jëf moo gën a expressif wax. bu ñu xoolee jëfam daa daa ëpp doole wax ci moo tax kooku tey jii de bonne fois amul dara lu ñu xaar ci moom. maintenant yaa a des ci qui la là le conseil constitutionnel bu limité woo ci wax lu droit comme ça se doit tey jii problème warta am donc pour man loolu moo loolu mooy li ëpp solo euh, deuxièmement boo xoolee aussi le can le président Ousmane Sonko sa posture depuis très longtemps euh, c'est d'inviter le président et l'administration et les institutions à jouer leur rôle de manière euh, vraiment Euh, de manière équidistante xam ne bi ñu ko defee waxuma la Ousmane Sonko mais képp kuy candidat wala sénégalais li ci sa àq di nga ko jot. waaw ah, moo tax tey jii nag amaana ci li nga mujj a wax mooy ci lettre bi ak polémique bi ci nekk euh, bon man teewlu ma fii ma porte parole Ousmane Sonko mais li ma xam xam ba xam ko mooy par rapport ak ni mu yàgg a doxale logique gul tey jii muy signé texte boo xam ne day ñaan njekk euh, Macky Sall yeneen ñi ko signé nag si opposition bi lañ nekk ñoo ay position yu solidaire ah yaay acteurs yu responsable yu ñu jox cër mais ci tomb boobu amaana ak mën na cee maanaam mais du yàq dara ci si objectif global bi ñu am mooy lan d'aller vers une élection euh, inclusive transparente mais surtout ensemble d'arriver à faire une alternance avec l'opposition qui veut vraiment la rupture ba tey ci recours yi Cheikh bala may ñëwaat ci yow am na ay réclamations yu ñu déposé contre euh, des candidats aussi ñu ne Pastef moom moo leen ngemb Bassirou Diomaye Faye ak docteur Cheikh Tidiane Dièye mu jóge ci candidat wu Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mu évoqué